asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. yéen mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di jiital ci sunu nuyoo kilifay yi diine yi fi teew di leen siyaare te di leen balaq te di leen balaq di leen jox seen waat ci waay it di ñaan yàlla sunu borom yàggal leen fi te kàttanal leen ñu yàgg nekk ci sunu kanam ñu yàgg nekk seen gannaaw di nuyu itam kilifay aada yi nga xamante ni ñoo fi teew di leen ñaanal yàlla sunu boroom ñoom itam yàggal leen fi te àggal leen seen mébét ak seen yéene ak seen bëgg-bëgg waaye di nuyu mboolam jullit yàlla yi fi teew yëpp bàyyiwun kenn bàyyiwun fenn bàyyiwun ñenn di leen nuyu ci turu village de Deqale Ali Dieng chef de village de Deqale moo leen di nuyu ci turu village de Deqale gépp di leen nuyu ci turu kilifa gi nga xam ne moom la yàlla teg ci bopp dëkk bi muy sunu sëriñ di sunu lépp di sëriñ Fall Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Moutada di leen jottali ab nuyoom di leen jottali siyaaram di leen jottali ay kàddoom ndax bis bi bi yàlla dogalee ñu di ko waajalit ñëwal nun ci moom ba agsi ci moom yëgal ko ko waxtaan ci ak moom mu ànd ci ak moom ndax lépp luy defar diine luy defar mbokk luy defar dëkkandoo sëriñ bi wax na ne képp ku ca nekk dana la ca fekk kon bi ñu ñëwee yëgal ko ko yebal na fi doomam sëriñ Abdou Khadir Mbacke mu ànd ak sëriñ Moutala Fall Mbacke Fall doomi sëriñ Modou Aminata Fall ci suba la ma sëriñ bi woo wax na ma yebal naa fi ñooñu na ngeen ànd ak ñoom ngeen dem teew ci bis ba kon noo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaare te di leen baal àq te di leen baal àq di nuyu itam mboolam kilifa yi fi teewaat waaye di nuyu mboolam sëtti Lat Joor yi nga xamante ne ñoo fi teew di nuyu itam Basiru Diop mi nga xam ne moom mi nga xamante ne moom moo organisé bis bii ànd koo ki ay xaritam ak wala réem ak sëtti Lat yi nga xamante ne ñoom ñëpp la ko àndal ñoo ngi koy encouragé ci bis bi te di ko ci félicité bu baax a baax ndax moom day amul benn bis boo xamante ni bi mu koy waajal ak bi muy tàmbali fii ñëw na ba àgg ci man yu ma waxtaan ak man mu ànd koog lemin jóg ñu dox jéego yu rafet kàllama yu rafet gisuñu ci yoom tappalee gisuñu ci woon ñoom ay wor gisuñu ci ñoom ay jaaxaan ndax nun kat fii lan toog deqale képp ku ñëw fekk nu fi te ñëw fii nun te wax ak nun danaan wax ak yow ñoom bi ñu dikkee fi noonu wax ak nun it wax lan wax ñu dégg ko lépp di defar di yaatal loolu dana leen ci fekk si dana leen ci jàppale te dana leen ci encouragé bu baax te di leen ci félicité bu baax te di leen ci jàppale kon ñi ngi sant mboolam ñi nga xamante ne ñoom la ko Basiru àndal ñi ngi sant kilifa yi fi teew ñi ngi sant chef de armée bi yëpp seen taxawaay gis nañ ko ndax ñoom it bi ñu fi ñëwee seen première ñi ñëw visite ci barab bi agsi nañ ba ca dëkk ba nuyu nu waxtaan ak nun wax nu seen mébét ak seen yéen ak seen bëgg-bëgg kon loolu lépp ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci jàppale te ci encouragé. mbokk yi fi daje yëpp ñu ngi leen di nuyu ci turu alaaji abdourahman Diop mom nak mo ñu yoni kaddu yi ñuy wax mom mo ñu yebal pour ñu wax ko mom nak neena bis bi telon na ci rafet ndort ndax euh, basiru bi mu koy xalat ànd na ak euh, ànd ànd ak ñimu wa andal ñepp ak Ahmadou Diop ñew ci mom limi magge magge ñu tok ak mom ñu waxtan ci mu ni leen man de damaa tële waaye loolu day rafetlu naa ko lool waaye nag danaa leen boole ak seen baay Moustapha Diop léegi bu ngeen demee ci Moustapha Diop lu ngeen bëgg rek ngeen defe ko noonu ba biig ci guddi rek waxtaan nañu mu wax ni bis bi ci waxtu wi ñu ko def sax rafetaay bi mënee su ko wax ndax dafa dajee ak màggalu Touba gu Serigne tuubaa gi te Lat Joor ku ne xamoon na ni mu demente ak sëriñ Touba loolu moo tax euh, mu wax ni bis bi rafet na lool loolu moo tax mu wax loolu mu daje itam ak sëñ Muntaqa nekk nekkal fi Serigne Touba doon Serigne Touba ah Basiru mi nga xam ni sii de nga moom moo ko xalaat itam ba di ko def itam ba tey nee na ay kiimaan am na ci ndax basiiru mi ñu ko tuddee moom la ñu tuddee Baye moom lañu ñu tuddee sëñ Basiru mi jur xalif général bi kon nag léegi loolu nee na tuubaa gépp mi ngi ci rafetlu na ko lool. mi ngi sant militaires yi itam ndax bi ñu ñëwee colonel yi daanaka ci moom la ñu fanaan ndax euh, fi ñu fanaan akub ëttam benn la moom nag li nga xam ni si moo ko ci xaw metti métti bi mu am ndax il est né en 1924 mënta fekke lii waaye nag moom sant na ci ndax jàppoon na ci itam ni dana ñaan na ci itam te jàppoon na ni bas da nga mën a dem ndax nee na xuuxkat ku muy dàq ciw xel ngay dëkk yow nag def nga li nga li nga war xuux dàqu la xuux jooju itam nee na jàllale na ko ba ci président de la république bi moom réew mi léegi am réew boo ko yoree itam bu la xuux dàq ndax nee na nii bas def mooy mooy defar mooy defar lépp léegi nag mi ngi sant njabootam gi fi nekk gépp mënuñoo lim xale yi mënuñoo lim ñëpp waaye nag colonel yi nee na amu am na seen cant boo xam ne si amutub yamu ndax journée consultation bii ñu def ci Cilmaxa ànd koo meeru dëkk bi meeru dëkk bi jàpp ci nit ñi faju ndax loolu daa jafe woon trop ndax gëj na ci gëj na fii ci Cilmaxa léegi nag ñu bëree bari faju nañ fa trois cent et quelques personnes jongal nañ fa lu war a mat ñaar fukki gone lépp ñu defal leen ko gratuitement mu ni colonel yi yéen sant na leen ndax yéen itam xam ne lan mooy mooy yéen yéen yéenay Sénégal bu leen xuux dàqoon ba nëga ni Sénégal jeex na Lat Joor mii tëdd fii itam xuux dàq ko dafa dem ko dab dab ko rek moo tax bii nga léegi sant na leen mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di ñaanal ngeen bokk yàgg fi lool kenn ku ci ne mi ngi lay ñaanal ca la ngay def yàlla def ci barke. bas nag nee na du ko noppee sant mukk ndax moom wax dëgg yàlla lii mu def rëy na ndax lii gëj na lii bokk yëpp daje nañ fi bokk yi gëj a gise yëpp gise nañu kon léegi bas nee na ameel na ko cant ameel na ko ngërëm mi ngi koy ñaanal jërë ngeen jëf. Euh, c'est un projet à long terme. un projet ah excuse-moi là <laughs> avec la toute la famille sénégalaise avec les autorités avec Tilmaha, Pekes et les villages environnants euh, Le projet bi que euh, euh, déxale ñëpp xam dans le monde pas la Dior mais déxale parce que nous xam Lat Dior xam donc projet bi dañ ci waxtaan su biir ak armée sénégalaise ak les autorités le procureur ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu toog waxtaan xam ni ñoo un créateur de projet ça veut pas dire que mon moom projet bi les idées sont là mais après dañ koy partager pour nekk ñëw ñu nous ku séddoo et maintenant nous pensons à décembre 2019 j'appelle tout le monde ñu ñëw ñu waxtaan ci pour defar 2019 maa remercier xam naa nag du gudd parce que su guddee rek da ngeen ni euh, Bass dafa fragile <laughs> donc maa ngi remercier le colonel Tap euh, le colonel Ndiaye le colonel Guèye le colonel l'adjudant Diatta su ma limee nag du ma fi jógee ak le procureur Bassirou Guèye mi xam ne dafa déplacé bàyyi voyagé mi bu ko neexoon mu ni kat du ma fekk te kenn mënu ci dara avec sa participation symbolique maa ngi gërëm si Aïdara Sylla yombal yu ak le maire sinon bu bu bloqué woon tuuti rek ñun duñ dem ak soxnaam donc nag ak colonel Tap maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax ak colonel gay mm-hmm. vraiment armée sénégalaise bu ñëwul woon kat ah Lat Dior ñoom ñoo tax ñu wax Lat Dior ñoom ñëw na te ñoom nag nañ ci jàpp ak seen fukki loxo at mu ne ñu def déqale 2018 2019 moo ci toog ñu travailler ensemble dans l' avenir main à main ah moom colonel nag li may fàttali bul fàttali sunu teen bi lu ma yitteel la ak vraiment bëgg naa mu pare parce que on a un projet ensemble ñu liggéey ci pour dëkk bi mën ci jariñoo musée bi tamit bàyyi naa ko sa loxo mon colonel parce que musée bi nag mun leen dem ñu tëj ko donc il faut autorité yëpp jàpp ci ñu xam ne musée bi kat bu ñu paree mu am une continuité. et personnellement je prends en charge pour les ordinateurs et autres il xam prendre au moins deux personnes en charge pour am les bu xëyee xëy ci euh, il faut aussi mu am gardien ñu formaliser ko dans l'informel pour que rek ñëw génn il faut que am ay fonds pour que musée bi mën donner. dund bu aussi des utilement xam ne jël donc pour le moment on a trois et nous parlons tous ensemble pour que ñu York.

Le 27 octobre 1886, la Diop Ngoné dans un dernier combat inégal, faisait face à l'envahisseur français ici à même Le Sénégal lui a rendu un hommage mérité en l'élevant au rang de héros national pour avoir incarné plus de deux décennies le refus de la soumission à l'occupant blanc. Lors du centenaire de sa mort, le 27 octobre 1986, son mausolée a été inauguré lors d'une cérémonie solennelle par le président Abdou Diouf. 32 ans plus tard, il est important de raviver sa mémoire afin, au-delà des prières effectuées dans ce mausolée, sa geste puisse être révisée. L'objectif n'étant pas de se complaire à une admiration béante de son épopée, mais plutôt d'en magnifier les valeurs et vertus qui ont sous-tendu son action et de procéder à une vulgarisation au sein de la jeunesse de notre pays. La Dior Diop, à 23 ans, a remporté sa première victoire sur les Français, justifiant ce adage bien français chez, chez Corneille, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. 23 ans durant, il a sublimé les valeurs et vertus de notre peuple, plusieurs fois séculaires, que la jeunesse gagnerait à y s'approprier aujourd'hui pour mener avec succès le combat, le seul combat qui vaille aujourd'hui et le seul développement de notre Sénégal. Aussi, conscient de ces enjeux, les membres de sa famille ont pensé que ce serait rendu un immense service aux générations actuelles et futures que de consigner à cette mémoire dans un endroit aussi approprié au musée de la Dior. L'initiateur de ce projet, mon frère et ami, est fils du pays, un petit-fils de la Dior, Basir Diop Latjor, Masek Latjor, il a, pris son bâtiment de pèlerin pour consulter toute la famille, rejoint par de nombreux par de nombreux conseillers, par les anciens, à donner forme au projet. Les autorités de la République l'ont alors appuyé pour en faire un projet national. La cérémonie d'aujourd'hui est donc l'aboutissement d'un long processus pour la volonté divine qui a donné forme à ce musée que, nous réceptionnons aujourd'hui. Ce musée sera équipé et habilitera des expositions sous diverses formes. Il est destiné aux, aux visiteurs sénégalais, en particulier le public scolaire et étudiantin mais aussi aux étrangers, pour permettre ainsi de promouvoir dans notre pays le tourisme national. Mesdames, Messieurs, vous me permettrez d'exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation du projet par leurs idées, leurs prières, par leur participation financière ou matérielle ou, simplement par leurs pensées positives. Il s'agit de son excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, du ministre de la Culture et, des et ses services, de ses collaborateurs, un projet de cette, de cette dimension ne peut se réaliser sans l'aide de l'État. Nous exprimons également notre profonde gratitude au professeur Ibadir Cham, qui a bien voulu être le parrain de cette cérémonie. Nous réservons une mention spéciale aux forces de défense et de sécurité qui n'ont pas mélangé aucun effort, qui n'ont mélangé aucun effort pour la réussite de l'événement. Singulièrement à l'armée nationale sénégalaise, au chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Cheikh Gueye, qui a engagé ses différents services et instruit le colonel Jean-Paul Tatulenko directeur des archives et du patrimoine historique des forces armées, de nous accompagner dans ce projet. Ce dernier, malgré les nombreuses sollicitations et engagements en cette dernière année de centenaire finissant de la Grande Guerre, en mobilisant toute son équipe depuis de longs mois, a été déterminant dans ce. Nous terminons. J'écoute, on m'a dit de J'écoute. Nous terminons en lançant un appel aux populations pour la collecte de reliques et d'objets permettant de concrétiser le devoir de mémoire l'endroit de ce héros, la Diorgone Lati. Je vous remercie de votre attention. am fàttali ko lay doon ndax itam sunu wajur yi nga xam ne daa tëdd fii tey bi muy ñëw fii ci sëñ Touba jo jóge eh, ne ko dénk naa sama njaboot dénkaane boobu nag moom la ñuy fàttali sunu bopp di ko fàttali sëñ Mountakha ne ko dénkaane boobu nu ngi ci ba tey jóguñu ci jërëjëf eh, di gërëm itam sunu sëriñ si nga xamante ñoo nekk ci kaw ak autorité yi li ma waxoon colonel Pape rek laay dellu di ko waxaat ne ko loo xamante ne da koy da nga koo bëggal sa bopp te mënuloo ko hmm. ku la ko defal war nga koo defal loo mënut kon ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant loolu biróom laa ko waxe woon e du ma terminer te du ma tudd suñu baay yi nga xamante ay exemple lañu woon ku mel ni Baye Botor ku mel ni Baye Sidi ku mel ni Baye Ahmadou mu seex yaabo mu bàyyi mor mor mor mor soxna ci njaarim ñooñu kenn ku ci nekk ëpp fii ay ëtt ay euh, euh, kii je m'excuse du dëgg te kenn mu muñu si kenn mu euh, kenn mu ci ne kii na lii na ko def na lii wala def na leneen li nga xamante moom dañuy jàmbat léegi ci réew mi naan def nañ lii ak def na léegi ñooñu kenn ku ci nekk am nga fi ay responsabilité te def kenn déggu ko ci yow ñooñu doo leen tudd doo wax lii te doo leen tudd Mame Matar Ndoumbe Diop maa ngi fàttaliku keroog bi ñu dem ci Abdou Diouf e daf ko bu fekkoon tey ci ay ball xuus dinu dinañu ñëw ndax dañu yaakaar ne lii nga yor suñu yëf nga yor kon duñu nangu kenn ku nu ko yàqal kooku doo tudd doo ñëw fii ci ëtt bii tey te ñooñu doo leen tudd euh, Baye Abbas ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi gërëm ñu ngi koy sant sëriñ Dakar sëriñ Cilmax ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp vraiment suñu xol sedd na ndax euh, lii toll na jamono boo xamante ne kenn kenn ko woon waaye nag sunu borom bi defal nañu sutura ba am nañ ci lu koy sunu njort